am loo nekk yow. waaye tey su doxee nga naaj de. yaa ngi ci dara de. ay ndaw la fii. xale baa ngi ci dara. waaye ni nga def. la. nga sa yoon de. man ngaa sëtig de. sëtig. musuma sëtig. kóol ba ca topp ma jox maam Faati ba ca toppam ma jox maam Jaara ma ne du ma romb benn buntu kër dafa fa fëgg ñu may yàpp sama doomu ndey rek lay koot moo ma indi nii waaye doo woote woote ma da kuy woo sa noon wala kuy woo koo xamat yow mi xam ne fajar ñoo ànd guddi ñoo tëb miir ñu ñi di wax ma lay woo alaatuma fii laay woote li nga wax am na waaw man dara taay sama xol ci suuf de. nekk. ah dal sa xel nag ca paaba. noo ko xamee. ay paaba na ma dem. jërëjëf. loolu ensemble mu jël tum. ref fa mu ñu mu kiris mu ne boo ko gisee mu ne yëpp noonu. sama xel nga si wóoree dafa la ko doon bañ a wax rek. waaye ko jox mu kiri sa loxo ñu tëj la ma dem tribunal taxaw di la xaar ñu la laal la deux mois te ñoo ne ngaa am fit. <laughs> yaa ngi ko wule ci loo ne ah ca ma nekkoon ca la ma nekkoon rek laa de. yàlla boo ci jógee. amiin waaye waxuma loolu xam nga dangaa woor si am rabu baax. ah ma ko bëgg fii laa ah, kay moo tax nag dama lay prévenir bala ngaa dem waaye mu bëgg. waaw bala ngaa dem dama lay teel a waxee fi nekk. ñetti paa fi nekk te ñetti yépp maay borom te dama leen a teg foo xamante ni nii nag ah donc xamante a yow yow de gaaw ngaa fat te xanaa asma sax boo amee di nga partager ndax bëgg a tane yow nga yor ko ci biir kër gi ma la ci ba waxal leneen partager ma kenn coow bañ a am kër gi. Eh, problème yaa xam nga dan lañuy def.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 59 75. Notre site internet www.cefas-du6sénégal.com. xarit boo xamante ne boobu jox ma ganaar bi jox ma benn paa nga am 2 ma am 2 réew mi yëngu maa sonn nag.

ah xanaa ñoo restaurant xam ñoo war a jël. yow yamal dama ne la tey yaamal tey hmm. ba noppi rek ma dugal na ci rukk yu baax baax yi. nekk ci leneen salaamaaleykum. maa ngeen def. yaa ngi si yow Mbène. am gan doo ko présenté. nan laa la koy présenté ba mu ñëwee ba tey maa leen soog gis te ci jën dugub ji la ah. démb ci guddi benn léegi doo fugg néeg bi nga ne aar doo am naa gan. maa ah, yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm alhamdulilah. Ardo taarikalla sama xarit la. sa xarit la waaw na ngeen def. ci yaa ngi am jàmm ba. ñu am jàmm taarikalla. naa nga de. naa gis nga lool. ci jàmm. soxna si na rek. ñu ngi fi ay jàmbaar. ñu ngi ci jàmbaar ah, waaw gi leeraay moom xanaa daa buur commencé te nga sa animation yi kii sama xarit la laa wax. ah falaa yem. cam xamal lu ma la wax. xam naa leeraay bi de loolu ko waral les femmes des soleil les femmes des biddiw les femmes des lumières. Eh! ni kër gi leeraay xamoon naa gën a dugg si kër déggal lii gan na nga def. maa ngi nii baa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm waa ah, <laughs> doy na doy na dañu woor. Ah, doy na wax ji oh, bi moo doy. kan laay ay lamp yu la peraara yooyu yëpp sa yoon nekku ci. soleil bi soleil yu la dégg leeraay pour yow. sa wax bari na torop fan yi kaw ma lan la di euh, gën a métti àdduna mooy pël bu dégg wolof waaw waaye ay wolof waaw dama lay wax man la bu fenk sa njolloor waaw képp kuy dox ci ko suuf la leer voilà yow nag yow da ngaa boole si bopp ci suuf si te bokkoo ci suuf si si dégg nga bokkoo yaa bokk si suuf ndax dama lay wax de nga pël bokk si nit ñi déedéet te nit ñi bu naa dox si kaw suuf nit ñee tax ma ne ah dama la xam nga yamal ci fu nga war a yam. yow yaa war a yam fa nga war a yam. dégg nga gàddu sa wet. waaw gàtt sa caay dem sàmm say nag. tàmm nga yow xam nga fa nga war a yam. fu ma fàkk tëdd nga fàkk fa nen. yow fu may fàkk tëdd yaa fóor nag xalaat fàkk. abaa abaa benn di génn. ah dañuy génn dencalaale ma peñe bi ma ñëw. jërëjëf nan la nit amee gan nga nekk moom ñu demee bi rek. waaw kay dem leen di ñëw. nit nga nit nga xam nga ni bël du nit. waaw bël du nit. yow yow yaa du nit yow yaa nekkul na ah, buur lan paadolo bi bëgg a dee buur yow lay wax ak ñi paree guma ngay mbelelal mbelelal buur ngay waaj xaw ma jàmbaar lan ah solal nit ñi sonal kan laa sonal ah kan laa ko sonal soo wax ci wàllu nit laay sonal te sonaluma la waaw waaw nekk nga buur na gis nga yaa may bëgg a soof ci may ma sama jàmm naa yaa may bëgg a soof xamal nga éviter sa bopp rek waaw éviter sa bopp rek lu may éviter sa bopp ma dara nga éviter sa bopp rek yow baax na foofu laa yemee yow na nga éviter sa bopp rek xam nga koo wax na ko éviter sa bopp waroon ngaa taxaw waaw fis kee waa yow lu nit def nga yàqal waroon nga taxaw xam nga rëcc nga tey ci mbokk beneen yoon doo rëcc boo gisee jigéen rek mel ni muus mu gis dogu yàpp rek Vito cocktail une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille fruits yëpp ñu jëmbatee ko Sénégal si anam yu sell te naturel puuy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi leen sawarloo jus bi sàppi nag oh, oh.